askan wi ndax askan wi daf laa won wanati la kii dem nanguwul a déglu askan wi Ousmane Sonko jamono yi nga xamee ni ñu ngi koy teg lii ñu ko teg parce que nag dina wuy ji moo demandé wuy ji d'accord na ci respecté na institution tu nañ lu nekk dañ doon wax ne Ousmane Sonko wasin na rek lañ ko desee ndax attaqué nañ ko siège attaqué nañ cortège am ay yoon yoon lii xew ci kii du bees ci moom fu mu tourné ñu kar ko attaqué nañ ko assemblée day jékki-jékki rek ñu song ko dama mujj dem ba assemblée ni ko bu dee am naa ci yow benn cër bul ñëwati assemblée nationale ci député boo xam ni danga demal sa bopp ñëw 2017 dugg ci assemblée nationale lu ne ñu watu ko ko lu ne mu gis ko ñu yeewu un beau matin benn journal la ko yëgal ni ko accusé dañ la nàngam ñu nangu ñu nangu ko nag muy dogal boo xam ne dañ ko nangu te booba yeewi amagul booba benn groupe amagul waaye Sénégal gii yàlla def fee def ay nit yu juste man de personnellement te na ngeen ma baal parce que mësuma nekk ci yeewi askan wi wax moi parce que le moi ay haïssable waaye tey damay obligé bu may def jeunesse bi wax ko ndax bi may constitué wu kenn santuma ko waaye bi ma ko koy wax daf dama dëj sama doom bu góor ni ko kii toog de lu ma ko yéene yàlla na ngeen ko bokk te suñ ko tegoon lii tey duma xam fan laa koy waxe man miy défendre jigéen man mi nekk à la base de la loi sur la criminalisation du voile man ma bokk ci ay instances au niveau international yuy lutter contre les violences faites aux femmes tey man mii may xalaat sama doom bu góor parce que ñu ngi ñuy andil le revers de la médaille ñu ñuy andil loi boo xam ne dañ cee sonn ñu ngi ñuy andil loi boo xam ne bañ koy concevoir dañ ko concevoir dans un esprit de justice et d'équité ñu daal di dem luñ ñu wanul amul ci biir loolu ci biir loolu nga xam ni dama defoon ni avocat ñii di ma tooñi avocat dama defoon ni avocat assemblée nationale la rek parce que règlement intérieur assemblée moo wax loolu ni ku ñuy yëkkati sa immunité parlementaire sa collègue moo lay défendre ma défendre ko mu nekk défense boo xam ne gêné na ñu bëri ci laa xam nu intimidation mel ndax man dama defoon ni kenn du ma intimider ci laa xam luy corruption ci Sénégal ci laay xam nag luy muñ ay milliards ndax mënoon naa ko ci am te yéen leen ma dara kon loolu. foo xam ne fa la nit ña jëm te fa nit ña jëm fa la askan wi jëm ñu to nekk di traîner Ousmane Sonko dans la boue parce que bu yàgg lañ lañu lañu lañu démontrer complot bi bi ma ko jëkkee wax complot bi maa ngi ko waxee grand jury maa ngi ko wax devant Babacar Fall démontrer ko complot bi ak message bi nga xam ne moo leeral complot bi parce que xam nañ ko waaye li nga xam ni téye nañ ko nag muy complot bi foofu laa ko démontré Sénégal yëpp d'accord ci de haut magistrat daal ni ñun mësuñu gis ku ku dul pratiquer droit génne droit ni nga ko génne booba lañ defoon ni dina jeex la 11 mars ci guddi sëñ Mountakha Bachir yónni doomam sëñ Bassirou Porokhane Cheikh waa M2D seen xol tàng na ndax nee na ñun ñoo wañ seen loxo keroog le 12 pour ni leen la manifestation bi waroon a jeexal li lépp le 13 ñun ñoo wañ seen loxo pourtant nag dama leen di yëgal ni leen su amaatoon tey it mu amaat ndax ku nekk da nga am gëm-gëm te kooku noonu ca Touba bu yónnee ndaw ka mu yónni daal dee ni ko lii la ñu bëgg ñu def ko nañu arrêté manifestation yi dañ koy def ba pare bàyyi yàlla ak suñu bopp parce que foofu la ñu toll ndax bam ñu teree ñun bàyyi nañu bañ ko waxee fukki nit yi ak ñeent yi ca gaañu bàyyi nañu mu ne bind leen jox ñu ba ñuy bind bëgg a freiner ay nit ñoo xam ne dañoo am ambition loolu lay bañ loolu lay xof daf koy xof moom Macky Sall day xof ambition bëgg koo dégg te démocratie lañ nekk am mouvement ba nga xam ne du euh, juddu na muy mouvement pour la défense de la démocratie loolu rek doyoon na message pour moom mu mën ko décrypter askan wi ni ko li nga wax ci Ousmane Sonko yëpp tere ne ko dans la bu dégguñu ko négal ba mu taxaw Ziguinchor mu daal muy la ville de Dakar qui dit mieux ñu dem élection législative actuellement ñu créer une situation inédite non seulement au niveau de l'Assemblée mais au niveau de la tradition parlementaire bi ñuy demander nañ dugal article 60 ci constitution c'est que majorité moo daan ñëw jël député loolu doyatul sénégalais yi ci seen bopp ni dafa am lu fi daan am dootuñu ko am man xam nga ku may gërëm man askanu Sénégal ay gërëm askanu senegal ak ku leen déglu nag ndax la ma waxoon nit ka dama dem banlieue ci benn xew ñu ne ma ana garde corps man leen maa ngi askan wi ku nekk ak askan wi doo soxla garde corps ku nekk ak askan wi doo soxla sécurité boo xam ne day gaañ kenn askan woowu nag tey ñoom lañuy njukkal wax leen ni ñu ngi dégg ndigal ba tey ndax ba ñu sëriñ bi nee bàyyil keroog le 13 mars 2021 amoon nañ possibilité lépp jeex waaye ba mu ñu nee bàyyil dañoo bàyyi ñu wax askan woowu ni leen ñu ngi ànd ak yéen ci seeni jafe-jafe parce que dañ leen a diggoon ni leen dinañ wàññi njëg yi te kenn mënu koo wàññi comme kenn mënu la am leneen lu mu leen làyyi ñu jël Ousmane Sonko teg fa ñu wax askan bi ni leen ñu ngi jël seen alal di ko defee naka sudul noonu ku nekk xam nañ ni ministre bi ni moom moo jënd ay arme waru la jënd arme ndax armée bi nag ñu am fulla lañu armée dafa organiser te nag yenn yi ñaari yëfa ma jaaxal ci mbir moom benn dañu dañu dañu dañu banaliser milliards léegi milliards daal dootul dara ba ñuy jël ay quarante cinq milliards di ko jiiñante leneen li ci des mooy yëpp sunu armée bii sunu armée bu organisé bi sunu organ armée bi nga xam ne dañu am des inspecteurs techniques yoo xam ne xam nañ fu arme dugg suñu armée bii nga xam ne fexe nañ ba armée sosoo ba nëgëri armée bu arme bu nekk ñu immatriculé ko corps para corps paramilitaire bu bëgg arme armée bi moo la koy jox ñu bàyyi fa loolu yëpp di indi ay waxi politique naan lii lii la dugg ak laa la dugg waxuñu ci Ali Kalaj ji xanaa ñëw naan affaire audition Ousmane Sonko dañuy findu nag te Yewwi Askan Wi mooy findu parce que waxatuñoo Ousmane Sonko citoyen ba nga xam ne moo ñëw former parti waxatuñu ak Ousmane Sonko leaderu Pastef waxatuñu ak Ousmane Sonko honorable député parce que immunité parlementaire boobu ñu nangu te mujjul mujj fenn askan wi moo ko joxoon um, Ousmane Sonko ba nga xamee ne nangu nañ ko ci tooñ askan wi ñu joxaat ko lu gën mais léegi dañuy wax ak Ousmane Sonko leaderu Yewwi Askan fi may jeexale nag mooy ñun ay gor lañu ba ñu waree dem élection dañ ko ni ñëwal yaay jiite sunu liste ñoo ko sant. parce que daf ni woon du ma cumuler ñu ni ko ñëwal quand même jiite sunu liste mu ñëw ragal tiit ga nekk ci list ba la Ousmane Sonko jiite moo tax baax na ci ñun moo jiite campagne bi ñu am résultat yi ñu am ak des euh, ak suñu liste bee kon suñu toogee ba tey ñu ñëw naan dañuy faagaagal Ousmane Sonko dañuy considérer ne ñun yeewi askan wi dañu yàpp parce que nag ñun ñoo ko def suñu champion ñun ñoo ko def mu jiitu ñun ñoo ko def ni dañuy ànd ànd nawle mais ci biir ànd nawle bi dañoo d'accord ni conférence des présidents Khalifa Sall moo koy jiite xitam muy convoqué di santaane di tere ñuy bàyyi loolu mooy ànd gor générosité du xaalis da ngay am générosité ci daraja da ngay am daraja ba pare parce que fii ay leader de parti rek ñoo fi nekk Ousmane Sonko noonu lañ ko defee suñu champion bu ñuy dem di wuti les suffrages des sénégalais ni ko jiitul bu ñuy dem fenn ni ko jiitul yéen sax bu ñuy ñëw ci yéen ni ko jógeel Ziguinchor ñëw jiite conférence de presse bi lii bëgg ko woon wax nañ ko waaye dañ koy def parce que ñun ay gor lañu te duñu gën a gore kon nag nañu wax président Macky Sall ni ko na delloo boppam waxuñu ko sax nañu xool ñun mais na delloo boppam na xool askan wi nit boo jiitee réew yàlla may la nga jiitee réew li ngay njukkale yàlla njukkale ko nit ñi la jiital mooy seet seen bëgg-bëgg nga topp ko loolu la président yëpp di def président laa ngi nii dellu si jooju fulla ku leen bëgg ñu bëgg boo amee sa njaboot boo ko bëggee njaboot gi dañ lay bëgg yàkkamte la boo demee ñu namm la boo demee ñu jaarale la waat ci beneen buntu dellu si la a moom bëggul loolu na déglu askanam parce que askan wi nag joxuñu ko un message codé message bien décodé lañ ko jox ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñu nekk ak askan wi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax justice bi ni leen on n'a rien contre ñoom sunu justice la réew mu amul justice économie ba du baax kenn du ñëw investir kenn du def dara nañu respecté suñu justice teg ko ci yoon jaarale ko ci yoon jàmm ni ñooyu te ñu seet nag lan mooy historique bi ba mu yegg si fii jërë ngeen jëf